أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw loolu mbokk jullit yi ba tey ñoo ngi ci kitaabu tawxid toll ci buntu ashafaatu te mooy ramm wala tinu semaine bële passé waxoon nañ lan mooy ramm waxoon nañu ramm ñaata xaaj la waxoon nañu ramm gi nga xam ne sharia nangu na ko waxoon nañu ramm gi nga xam ne sharia daf ko dàq tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ñu ngi bëgg a fàttali sunu bopp di leen fàttali ramm googu nga xam ne moom la ñu nangu ñaata xaaj la عرفنا أن الصفاء المثبتة المثبتة هي التي تطلب من الله تعالى وهي أنواع منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يكون له ولغيره من الملائكة والنبيين والصالحين وذلك بشروط التي تقدم ذكرها mu ne xam nañu ci sunu dars yi passé ne ramm gi ñu saxal ci yàlla subhanahu wa taala rekk lañ koy utee ramm gi sharia nangu nee na ramm googu ay xaaj la am na ci boo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rek moo ko moom keneen amu ci place am na ci boo xam ne moom moo ko moom waaye am na ñeneen ñu ci am mooy ak malaaka yi ak yonent yi ak nit ñu baax ñi waaye loolu lépp nag li yonent bi moom li malaaka yi moom li yonent yi moom nit ñu baax ñi li ñu moom yooyu yëpp dafa tënku ci ay charte bu ñu yaakaar ne dafa am ci kaw suuf koo xam ne ëllëg day jekki-jekki rek am doole am kàttan am sañ-sañ mën-mën goo xam ne day ñëw rek fëgg buntu safara rek daal di xool ñu ko neex rek mu ne leen génn leen demewul noonu de bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy ashafaatul kubra mooy ramm gu magga ramm gi nga xam ne ñépp ay daw res ku mu mën a doon keroog da ngay daw ba mu des yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nit ñi ñi ci gën a baax mooy yonent yi yonent yi ñoo gën a baax ci nit ñi yonent yi gën a baax yépp ci biir yonent yi ñoom la yàlla wax seen tur ci Qur'an ñu nekk ñaata ñu nekk ñaar fukki yonent ak juróom ñoo gën ci yonent yi ñoom ñaar fukk ak juróom ñooñu juróom a ci gën ñooñu la ñuy wax ulul azmi min ar-rusul yowmal xiyaam sax bu jotee ràmm googu bu jotee ñooñu dañuy daw juróom ñooñu kenn ci gën fu ñeent ñee dawee kon est-ce que dinañ xalaat kurul yonent ku ñu yónniwul malaaka kon nit ñi bëgg nañoo dund diine waaye dañ cee boolewul seen xel te xel lu mu bokkul dootul baaxati loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom te mooy ramm gu magga nee na keroog ñëpp ay daw deltu ginnaaw même ulul azmi ibrahim Moussa Isa Nuux dañuy daw nee na tantahi ila nabi mbir mi daal di jeexe ji ci loxoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ana laha maa ko yeyoo maa ko moom léegi ngeen indil mbir mi boroom ñu laaj boroom xam-xam yi loolu nan lañ demee mu ne ci hadis la mu ne wa zalika hina yatawajjahu alxalaiq ila al anbiya li yashfau lahum ila rabbihim ndeysaan bis bu ñu xëyee muy yowm al qiyam keroog nit ñi danañ sonn torop boroom xam-xam yi nee nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla day wàcce jant bi ba mu tiim nit ñi mille kenn xamul mille kilomètres la kenn xamul millimètre la kenn xamul mille mètres la mille la yonent bi wax nee na keroog nga gis ku ñaq ba lab ci ñaq bi di ci féey keroog nga gis ku ñaq ba ci xuus keroog nga gis koo xam ne yaram bi ay tif tif rek mel na yow yaa tooyal sa loxo wicc ko ko noonu lay mel moom bu nit ñëpp sonnee nag nit ñi daal di fëx utali yonent yi ngir yonent yi ñi ràmmu leen ci yàlla tinu leen ndax sonn nañ ndax yonent yàlla Muhammad mi doon misaal barab ba nee na di nga gis benn tànk fu mu war a taxaw ay junney junney tànk tegu fa kon di nga gis tànk boo xam ne teguwul ci suuf dañ koo képp mu nekk ca kaw ndax nit ñi nu ñu baree nee na nit ñi bu ñu sonnee ci coono googu ci yaramu neen woowu kenn du sol yére laa taxfa minkum xaafiya ñépp dung ci kanamu yonent yàlla subhanahu wa taala amul kuy sol mbubu koo xalaat rek ndax dina sol mbubu wala du sol mbubu kooku ngay xalaat am na koy xalaat kooku du sol yére am nga koy xalaat kooku du sol yére am nga koy xalaat kooku du sol yére ba ñëpp jeex koy xalaat keroog sol yére laa taxfa minkum xaafiya keroog ku nekk sa bopp nga tal li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni keroog ku ne koo gis koo xalaat am nga koy xalaat boppam la tal dafa am koy xalaat boppam la tal li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nun yughni ci coono googu nit ñi nekk ci jafe-jafe joobu boobu ci tar-tar boobu la nit ñi di fexe dem ci yonent yi pour yonent yi dem ci yàlla tinu leen pour yàlla musal leen ci coono bi pour ñu mën a noppalu ci taxawaay bi jàng ngeen yàlla nee na dañuy taxaw kam xamsiina alf sana xamsiina alf sana yàlla nee na la ñuy taxaw benn place xamsiina mooy ñaata alf mooy ñaata mu nekk juróom fukki junni at la ñuy taxaw benn bés moo tax ñu tuddee ko yowmal qiyaama bésu taxawaay bi xam ngeen lu tax taxawaay bi di yàgg fii nag fii ñuy wax ni taxawaay bi taxawaayu science la du taxawaayu xel lu tax inna yowman inda rabbika ka alf sanatin mimma taudduun sunu junni at ñun mooy benn bis ci yàlla inna yawman inda rabbik ka alf sanati mimma ta'uddun ñun sunu junni at mooy benn fan ci yàlla loolu moo tax yàlla yonent bi ne àdduna amul valeur àdduna amul njëriñ àdduna yàggul dund gi yàggul ki fi am téeméeri at ci yàlla ay seconde la fi am loolu moo tax yowmal xiyaam bu ñu fëggee bàmmeel bi ne nit ñi jóg leen ñu jóg ñuy laaj nit ñi yow ñaata at nga fi am nga gis ku ne lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha kenn ni ne man suba laa fa ñëw dee fekk am na fi juróom fukki at kenn man ngoon rek dama ngoon rek laa fa def rek dee fekk am na fi juróom ñaar fukki at ñi fi am téeméeri at moom dañ naan in labisna illa yowman benn fan lañ am dee déggu leen li may wax de est-ce que yéen ngi réy ki fi dund téeméeri at bu yowmal xiyaam jotee ñu fekk ko ci bàmmeelam yee ko ne ko yow ñaata at nga am àdduna danaan benn fan laa fa def dee xam nga lu tax mooy ñun suñu junni at mooy benn fan ci yàlla kon léegi bu ñu doon bu ñu doon bu ñu doon faram-fànce bis bi doomu aadama def fii ci yàlla lan la est-ce que mën na minute ah ndeysaan ndeysaan moo tax benn bu jigéen dafa gis ñuy suul benn xale bu am ñeent fukki at yaay ji jooy ñu ne yaay ji looy jooy mu ne sama doom bi dafa gàtt fan ñu ne ñaata at la am mu ne ñeent fukki at am ko xaacu ci ginnaawam daan ne wallahi loolu ay nit def nañ ko benn sujjóot mu daal di jeex ñeent fukki at yooyu def nañ ko benn sujjóot bu ñu sujjóot rek ba mu jeex tàkk ñeent fukki at yëpp sujjóot la benn sujjóot kon il faut ñu delloo suñu xel xam ne ñun dañoo ñëw fii mais dañuy romb fii saxuñu fii dafa am fu ñu luy sunu jubluwaay ci ñëw fii dañ fi jóge dafa am fu ñu jëm foofu ñu jëm dafa am lu mu laaj ñu yóbbaale ko fa foofu ñu jëm dafa laaj fii ñun ñu jële fi ay mbir yóbbaale ko foofu foofu ñu jëm dafa laaj suñ fay yegg si ñu ma am melokaan buñ fa bëgg yooyu nag boo ko defee ci sa bopp kon yii day yomb ci yow dootoo fi am jafe-jafe waaye bis boo ko lemee teg boor sa dund dina yàqu te bala ngay xam ne sa dund yàqu na dund gu yàqu du ko amul ku xiif du ku mar du ku nekk fu amul courant du ku nekk fu amul ndox du ko amul lu muy dawal du amul du ko amul dépasse du loolu mooy dund gu yàqu dund gu yàqu mooy nga nekk ci caaxaan ba nga dee dugg bàmmeel li nga xam ne li nga doon dund amul njëriñ li nga xam ne sa dund yëpp dafa yàqu woon moom mooy dund bu yàqu bi nit ñi sonnee ñépp fëx daw ci yonent yi ci waxtu woowu ci place boobu imam Bukhari mu ngi nettali ci xadisu abu hurayra mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na anna naas yazhabuna ilal aadam nit ñi li ñuy njëkk a def mooy ci bàyyi aadama la ñuy njëkk a dem lan moo tax nit ñi bi ñu nee bëreet rek ñu daw dem ci aadama mooy seen bàyyi tey xale boo ko doon dóor ci ku muy dem kon nit ñi juumuñ xale boo ko doon dóor léegi fu mu jëm fu muy làqatu ci baayam fu muy daw jëm ku muy woo moo tax nit ñi bi ñu nee bëreet sonn ñu daw dem ci aadama mooy sunu bàyyi ñu ne ko sonn nañ ñaanal yàlla coono gi jeex fa yaatazir mu gàntal la moo tax aadama gàntal parce que moom boppam la tal wax nañ sànq aaya bi li kulli mri'in minhum yawma izin loolu moo tax boppam la tal dañ ko ne woon wala taqaraba hazihi sajara bul jege garab gi yàgg sa soxna mu dem lekk yàlla daal leen di dégager génne leen aljana ne leen ci suuf acca moo tax gis nga alxuraan suñu problème sénégalais mooy alxuraan lañu déggul wallaay mun déggoon alxuraan kon réew mu réew mu gëm yàllaa nga nii waaye mun na koo dégg parce que duñ ko jàng parce que yittewul wuñ ko suñu yoon nekku ci bala ñu koy jàng am ku dee wala am kuy toxu këram di toxu ci kër gu bees wala am ku tiit ku ñuy waaj a audité wala am ku feebar gis nga sax bu nit feebaree di sonn dañ naan jàngal leen ko yaasin ndax mu dee ndax mu dee xoolal ndax mu dee ndeysaan ñu waroon ko jàng ngir mu dund ñu ne nañ ko jàng ngir mu dee alquran pour rey nit taxu koo jóg li tunzira man kaana hayyan aaya baa ngi ci saar bi ci yaasin yàlla mu ne nañ waar waaji alquran balaa muy dee buñ bàyyi ba waaji dee ñu ñëw di ko jàng ba njëriñ layam adama boppam la tal ndax dañ ko tere woon mu tarxiis fa azallahuma sheytaanu anha sheytaane tarxiis loo ko moo tax yàlla di wax ci quran wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya dama wax ak aadama mu fàtte comme mooy seen baay nag fàtte boobu moo leen topp moo tax ñu tuddee ñu insaan fàttekat fal insaan mahalu nisyan fa inna awalu nas awalu nas ñu ne doomu aadama mooy magasin wu fàtte ki njëkk a fàtte ci nit ñi mooy première nit mooy aadama fa inna awalu naas awalu naas dégg nga arab boobu nuñ ko rabbee aadama bi ñëwee nit ñi ñëw ci moom mu ne leen sama bopp laa tal ndax man yàlla tere woon na ma lekk ci garab gi ma lekk aadama ñaata bàkkaar la am benn benn bi mooy lan bu lekk garab gi mu lekk du loolu rek la de yàlla wàcc ko ci kaw suuf àjjana la nekkoon bi mu ñëwee ci kaw suuf makasa salaasa mi asana lam yarfa raasahu ila sama toog na fi ñetti téeméeri at ci kaw suuf xoolul kaw asmaan ndax rus yàlla ñetti téeméeri at salaasa mi asana ibra aadama def na ko ci kaw suuf xoolul kaw asmaan ndax rus yàlla subhanahu wa taala ci benn bàkkaar ba mu def te yàlla baal na ko de to jéggalu na yàlla yàlla baal ko ba mu lekkee yàlla woo ko ne ko ndax terewuma la garab gi aadama dafa tuub mook soxnaam fa talaqa aadamu min rabbihi kalimaat fa taaba alayhi innahu huwa baat ya ñooy lan rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna yàlla wàcc ko ci kaw suuf ne ko baal naa la de waaye di nga wàcc fii pour nga duggaat fi pour nga liggéey foog nga liggéey li lay delloo fi nga nekkoon foog nga liggéey acca loolu moo ñu wàcc bi ni ñu ñëwee ci aadama mu gàntal ne boppam la tal ah nu ñuy def dem leen ci nuux summa ila nuux gaa yi daal di jubal ci nuux ndax nuux bi mu ñëwee lu mu def lu mu wax sama bopp laa tal ñu ne ko yow nuux loo def bay tal sabab mu ne maa ne woon rabbi laa tazar alal ard min al kaafirina dayyaan yàlla bul bàyyi fii benn kër na ñëpp dee man loolu laa tal ma kenn wax sama bopp maa ñaanaloon nit ñi tuufaat ñëw ñëpp dee waaw gis ngeen noox ah cheikhul mursalin cheikhul mursalin ñu yàlla yónni nu mooy seen mag mooy seen doyen seyxul mursalin nuux yàlla yónni ko mu ñëw ñaataat la fi def alf sanatin illa xamsina aman junni at yu manqué juróom fukk nuux nekk na ko ci dëkk bi di woote te nuux programme woote nekkul lu mu def ajjuma ba ajjuma wala samedi ba samedi wala dimanche ba dimanche wala fajar gu nekk rek bu ma jullee ci jàkka ji daal di wax ak nit ñi nu xam ngeen lan moo doon programme am daawtu qawmi laylan wa nahaaran guddi ak bëccëg su may ni aalantu lahum wa asrartu lahum israaran lu feeñ lu nëbb soo ko gisee mu ngi woote boo ko gisul moo ki moo ngi woote guddi moo ngi woote bëccëg moo ngi woote yàlla mu ne junni at yu manqué juróom fukk waa jaa ngi woote waaye benn kër moo ko gëm benn kër benn nit benn famille moo gëm nu benn kër benn kër junni at yu manqué juróom fukk su doon Séné su doon ci Sénégal la ñu ne benn kër moo ko fi topp benn kër ñoo ko gëm ah kon nit ñooñu dëgër nañ bopp de waaye nag loolu mooy loolu mooy melokaanu doomu aadama mooy dëgër bopp loolu la ko yàlla tuddee parce que dafa dëgër bopp waaw nit dafa dëgër bopp du loo ko wax rek mu dugg ci bopp bi mu def da jëfi ko loolu mooy sunu tabia mooy dañoo wowle waaw léeg-léeg saa yi nga am doom nga ne ko yow ku dëgër bopp nga est-ce que yow dëgëroo bopp ah yow tamit am na koo xam ne bu ñëw ne la yow ku dëgër bopp nga kooku tamit am boo xam ne koo xam ne bu ñëw ne ko yow ku dëgër bopp nga nuux daal di gàntal daal ne man mënuma tey mënuma dara lu nit ñi def summa ila ibrahim alxalil ñu daw dem ci ibrahim xalil xalilur rahman xaritu yàlla ah kooku de waroon naa mën a lijjanti mbir mi wala ah ki yàlla ne ibrahima waxul man yàlla mooy sama xarit de yàlla moo ne man ibrahima mooy sama xarit kon kay waroon naa mën a régler problème bi waaye mu ne sama bopp laa tal ñu ne ko yow loo def mu ne damaa musoon fen benn fen waxul ñaar de waxul ñett mu ne musoon naa fen lan mooy fen bi fekkoon naa ay xërëm yu ndaw ak yu mag ma daaneel yu ndaw yi jël jaas ji wékk ci baatu yàlla bu mag bi nit ñi ñëw ah ne ku def nii ah man leen laaj leen yàlla bu mag bi moom kay moom moo def nii comme fekk ngeen ko moom mu ngi wékkoo jaas ji moom moo daaneel xale yu ndaw yi fekk moom dafa bëggoon jàngale mu jàpp ne loolu mu def fen la ay ñun nag allahu akbar la ilaha illa allah la ilaha illa allah ndeysaan la ilaha illa allah ay waay ibrahima ne man loolu laa tal loolu laay lijjanti tey ñenn ñi borom xam-xam yi ne déedéet du fen boobu de dafa àndoon ak saara Égypte benn buur daal di foqarti saara ci loxoom bi mu ñëwee ñu koy laaj kii salan la mu xam ne bu waxee sama jabar la dañ koy nangu mu ne kii sama sœur la te loolu islaam nangu na ko loolu mu wax noonu sa jabar sa rakk la islaam nangu na ko innamal mu'minuuna ixwa ñoom ñaar rek ñoo gëmoon yàlla foofu mu ne kii sama mbokk la loolu mu wax est-ce que dëgg du ay fen la ndax jullit du jullit mooy mbokkam ndax ñoom ñaar duñu ay jullit innamal mu'minuuna ixwa xoolal ñaari yëpp Ibrahima jàpp moom ne da loolu fen la loolu la ko yàlla di laaj tey moom moom boppam la tal te Ibrahima ci ulil azmi la bokk de est-ce xam ngeen Ibrahima mooy kan ah Ibrahima xam ngeen mooy kan. xaritu yàlla yemul ci loolu rek takkul garaat boobu rek ban garaat ah Ibrahima yan garaat la takk ci yàlla. pourtant tabaski bi sax xutba jumaa bi xutba tabaski bi ci la bokk wax nañ ko ci ak ca beneen ju vendredi ba ci tegu Ibrahima yan garaat la takk ci yàlla ñëpp a ngi ci alxuraan bismillah imaamul muwahidin ñiy wéetal yàlla yëpp Ibrahima mooy seen imaam ak lan ak ban imaamu muwahidin ak ban dama war a def ni cheikh boobu di jàngale ci benn chaîne bu tudd Arraaya day yor ay portable yu bëri teg bu posé question ku trouvé rek mu jox la benn noonu laa war a def ma indi fi 200 portable teg ko nii waaw su su ma posé question ku trouvé rek kon gis nga instant bi joxoon naa ki benn ndeysaan ñaanal leen rek ma xaas mu jënd lu bëri teg ko fi wala ay parfum wala ay ay kii trouvé rek ñu jox la incha allah ibrahima ban garaat la takkaat ginnaaw imaamul muwahidin ibrahima moo nekk septième asamaan di yar doomu jullit yi faatu nekk ay liir ah ibrahima septième asamaan la nekk xale bu ndaw bu faatu fii rek ibrahima moo lay yar Ibrahima mooy kanaat kan mooy yaraat Ibrahima encore Ibrahima lu muy tekki mooy abun rahim baay ju bëri yërmande baay ju bëri yërmande loolu lay tekki fu bëri yërmande moom Ibrahima terewul lii lépp mu takk nit ñi ñëw ci moom sonn mu ne leen mënuma dara tey sama bopp laa tal jàngoon nañ aaya bi li kulli mri'in minhum nu ñuy def dem leen ci Muusa ndeysaan Muusa moom mooy kan loolu moom leer na Sénégal kalimullah wa kallama allahu Muusa xoola ku wax ak yàlla jóge nañ ci xaritu yàlla xanaa kooku mënul dara ñu ne nañ dem bokki doon wax ak yàlla boog allahu akbar xoola ñu grade yi ñu takk te mënuñu tus ñun ñu jàpp ne fii am na ñu mun dara ñun dañu nax suñu bopp xoola ñii liñ liñ def kii dafa wax ak yàlla kee yàlla moo ne kii sama xarit la mooy imaamul muwahidin kële mooy cheikhul mursalin kële mooy abul bashar baayu nit ñëpp ñooñu ñëpp mënuñu tus yéen ngeen jàpp ne Sénégal am na ko am day ñëw rek ne ana caabi ji ñu ne mu ngi nii mu ubbi ne bismillah na ñëpp génn fi kan fi yendu bu nax suñu bopp bu nax suñu bopp nañ jaamu yàlla gis nga wax ji wax ji li mu bëri bëri mooy nañ jaamu yàlla ma ni ñii lu ñu mënul wallahi kenn mënu ko ëllëg yowmal qiyaamati bu ñu mënoon yonent bi ne ñii mën nañ mais dañoo mënul Moussa dafa wax ak yàlla wax ji neex trop Moussa ñëw beneen jour ne yàlla foog ma gis la wax ji doyut yàlla mu ne ko Moussa mënoo maa gis ne yàlla foog nga gis la mu insisté yàlla du fa nekk di wax ak moom di werante ak moom yàlla mooy boroomam moom jaam la waaye yàlla da ko bëgg a jàngal ne ko mënoo ma gis mu insisté yàlla mu ne ko am na benn montagne bu nekk sa wet xoolal montagne bi su ma feeñoo montagne bi bu fa montagne bi nekkee di nga ma gis yàlla mu ne subhanahu wa taala ci quran fa lamma tajalla rabbuhu lil jabali jaalahu dakkan wa xarra musa sayqo bi yàlla feeñoo montagne bi feeñu yàlla du yàlla lépp de feeñu bu doon furna booy boyal la benn ferñeent génn ci dal ci montagne bi montagne bi explosé daa di xar mook nekk pënd musa xëm ndax li mu gis montagne bi ni mu def bi mu ximmali ko mu ne yàlla maa ngi tuub dootuma ko roxati fii nag Sénégal da ngay gis ku ne gis naa yàlla wala wala banu Israil dañoo insister ne dañuy gis yàlla bàyyi lañ bàyyi Moussa banu Israil ñu ne Moussa won ni ñu yàlla sinon duñu gëm arina allaha jahratan won ñu yàlla face à face yàlla yàlla wax fa axzatuhum saaiqa yàlla yónni benn malaaka mu xaacu seen kaw ñoom ñëpp ñu dee waaw Sénégal yi gis yàlla nag allahu akbar gis yàlla tey looloo xew ci jamono bi am na ñuy wane yàlla yi yox ak benn xale bu ndaw mës naa am sama benn jarbaat ñuy añ rek benn waaye ne ma ah kër gi soppeeku na de fekk damaa toxu ci kër gi ay ay ay at daal ma ñëwaat nag rek ñuy añ sama benn waaye mu ne ma sama benn mbokk mu ne ma kër gi am na soppeeku de ma ne ko lu fi xew mu ne ma am na soppeeku de ñetti ñii de ngay añandool dañoo soppeeku ma ne leen lu xew mu ne ma ñii de dañ dañuy wane yàlla ma ne ko ah mu ne waaw ma ne kenn ki dëgg la mu ne mu ne day dër nag mu ne dëgg la kay dëgg la kay ma ne ko kon yow da ngay wone yàlla mu ne ah mu ne mu ne ma boo boo boo réyul kay ma won la yàlla. ma ne keneen ki ah yow tamit mu ne waaw waaw waaw wax na dëgg ah ma ne keneen ki mu ne waaw na dëgg kay ma ne yéen xanaa balaa ngeen di wax waxu yàlla sax gis yàlla ngeen gis yonent bi. rek keneen ki ne ah yonent bi gënuñu ah gënuñu de ma ne ah ah ma ne gënuñu gënuñu gënuñu ma leen jóg leen añ bi moom du yegg jóg leen ñu jóg ma woo sama yaay ne ko gis nga ñett ñi li ñu li ñu wax mu ne waaw ma ne ko fii moom fii moom xaw ma ban kër de mais fii moom duñ fi nekk rek ma dugg ci biir simmeeku ji maire bi génne leen ma tëj buntu kër gi li garaaw mooy ma dem néeg ma néeg bi ma nekkoon ma génn fa bàyyi leen fa ma dugg ci néeg bi gis ay posteeru xale yu jigéen ween yeeg silib yeeg ma ne xoolal ñii ba ñii ñu ne yàlla la ñuy gis billaahi wallahi taala ma demee ci néeg ba ay posteeru footballeur laa fa fekk ak ay xale yu jigéen ñu def yaramu neen ñu taf ko ci miir yi ñooñu dañuy gis yàlla
kenn kenn ci ñu koy war a jigéen bi dégg naa ci mu ne moom gëmul yoon bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga gëmul gis ngeen kii nee na dégg na kenn ci ñoom ne gëmul yonent bi kon du yoonu lislaam ba pare encore encore gis naa aussi muy denc yaay ak doom dégg ngeen kuy takk yaay ak doom nga denc yaay ak doom ñu wax nga ni gëmoo yoon bi la ba pare ay julli di la wuyu si ne ne yow ci lislaam nga nekk non gis nga dafa am loo xamante ne bu nax suñu bopp ku seetaan sa njaboot dugg ci nag buñ dee rek dem safara di nga tuñu de dëgg gi dëggu yàlla la waaye waxee dañ naan la loo xool rek yàlla.
waaw yow yaay caaxaan la rek loo xool rek yàlla.
loolu du lislaam jullit daal ma ne Aboubacar Sadiq ndax ginnaaw yonente bi ci xeet bi am na ko gën musul gis yàlla est-ce que jëful ci lislaam lu mu ko waroon gisee est-ce que jëful ci lislaam lu yonente bi waroon jàpp ci loxoom ne ko yàllaa ngi nii nañ bàyyi ñooñu sax ñooñu ala ñoom alaaji Maalik ak ñoom Serigne Touba dañoo gis yàlla fan ngeen gis ñu ne ñun gis nañ yàlla ñoom ci seen bopp gisuñu yàlla waxuma la ak nag keneen kon nañ leen jaamu yàlla dañ leen jaamu yàlla jaaru ci yoon wi yoon wi daal mooy yoonu yonent bi ku ci jaar dugg ajana bi ñu dawee dem ci Moussa Moussa gis ngeen fu mu mujje Moussa moom lan mooy problème am ba nit ba mu ne nit ñi mënuma dara dane man damaa reyoon nit doo fekkoon ñaari nit di xeex may àtte ba ma kenn ki kenn ka dee parce que Moussa dafa amoon doole fekk jàng ngeen ne ba mu fekkee teen ba ay ponkal di yëkkati xeer bi moom dong moo ñëw ne sajj xeer bi teg ci suuf kon dafa amoon doole Moussa moo tax ba mu fekkee ñaar ñi di xeex mu leen di àtte mu ne kenn ki zajj teg ko fële rek waaja sedd guy waaw léegi nag waa banu Isra Firawna di ko wër mu daw loolooy sababam mu daw génn Égypte mu jëm Madian ba mu dem fekk fa yonent yàlla Shuaybu mu takk benn doomam bu jigéen bi muy ñibbi ci yoon bi la ko yàlla def yonent yónni ko ci banu Israil ci firawna mu ne mënuma dara nit kooku ma reyoon loolu lay lijjanti mënuma bu ma so- sori leen fi ba kenn tànqal tam bopp laa taal ah lu ñuy def mu ne summa ila isa ñu dem ci isa ibnu maryam kooku moom xanaa de du ko ndaw ku amul baay koo xam ne yàlla moo yónni jibril jibril ñëw ëf déndi baat yaayam mu ëmb loolu moo sax sax chrétiens yi alku yi naan yàllaa ko jur parce que du ko ndaw ruhullah waaye biñ ko ne sonn nanu e waay tee ngaa dem ci borom bi mu dimbali nu mu leen sama bopp laatal yow luy sa problème mais dañ doon wax man yàlla laa sama yaay yàlla la loolu laa bëgg a lijjanti te man jaamu yàlla laa inni abdullah bu mu juddoo lu mu wax salaamun alayya inni abdullah aataani alkitab wa jaalani wa jaalani mubarakan ah inni abdullah aataani alkitab man jaam laa yàlla ma jox téere bi yàlla na jàmm nekk ci man bis bi ma juddoo salaamun alayya yow ma wulittu bis bi ma juddoo yàlla na ci jàmm nekk ñetti jàmm la nit war a ut ci dundam mooy ñetti yi isaa ñaan salaamun alayya yow ma wulittu wa yow ma amuutu wa yawma ubaasu xayya sa dund ñett yi nga war a liggéey bi ngay dund nga li nga góorgóorlu ci jàmm soo demee bàmmeel nga góorgóorlu fekk fa jàmm yawmal qiyaam nga fekk fa jàmm ndax nga dugg aljanna këru jàmm ji hmm? ah wa kulluhum ya'tazirun ñii ñëpp gàntal nañ yemuñ ci gàntal de waaye lan lañ doon wax wa yaquluuna nafsi nafsi ku nekk naan sama bopp laa tal sama bopp laa tal fu xale bi fekk naan ba- baayam naan sama bopp laa tal sa papa nga yaakaaroon nga ñëw fekk mu naan sama bopp laa tal de bu yeboo nga sori ma luy xew foofu summa yatuuna rasul ñu ñëw ci yonent yàlla muhammad ne ko jaamu yàlla yi sonn nañ dañoo bëgg nga tinul nu yàlla mu génn ñi ci njàqare bi nu nekk xam nga lu yonent bi wax ana laha maa ko moom yéen a ngi doog a ñëw ci borom ana laha maa ko moom waaw kooku waxul ne dafa ne maa ko moom ana laha maay borom mbir mi mu jóg ñëw ci kanam borom bi daal di sujjóot gis nga li mu def dafa dafa tàmm jaamu yàlla moo tax bi mu ñëwee lu mu def dafa jaamu parce que jaamu la xam xamul leneen bu doon keneen day ñëw simi ay veeram tegale tànkam way monsieur juste non ndeysaan moom xamul loolu moom jaamu la xam même ci jamono sax bu jógoon jihaad nit ñi di nàcc ñiy sonn danaan yaa bilaal arihna bisalaa nañ leen noppaloo julli xoola moom bu sonnoon julli lay noppaloo ñun bu nu sonnee tey lan la ñuy noppaloo bu ma kenn déranger nga fay nga ni sa soxna ku fi ñëw nekkuma fi wax naa la ko ah nga dugg sa biir néeg moom bu sonnoon day julli moo tax bi gaa yi sonnee ñëw wax ko jaamu yàlla la xam mu ñëw sujjóot ci kanamu yàlla yàlla moo ko woo ne ko irfa raasaka yëkkatil sa bopp tey dugg si julli julli jeex na àdduna lañ leen ko santoon fii kenn du fi jaamu yàlla jaamu jeex na irfa raasaka ya muhammad yëkkati sa bopp yow muhammad mu yëkkati yàlla mu ne ko was al tuta wasfa tushaffa laajal maanaam waxal ñu tontu la laajal ñu jox la ndeysaan allahu akbar moo tax mu ne ku dégg ñuy noot ba nodd bi jeex mu ne allahuma rabba hadihi daawati tamma wa salaati alqaima ati muhammadan alwasilata walfadila lu ci tegu wa waasu maqaman mahmudan alladi waadta am na riwaaya bu yem foofu boo demee ci boo demee ci hisnul muslim di nga fekk Cheikh Abdul Aziz bun Baaz yokk ci innaka la tuxliful miaad boo yemee fee baax na boo ko yeggalee innaka la tuxliful miaad baax na yonent bi nee na ku digg noddukat nodd nga wax lii ëllëg yowm alqiyaam xalaltu lahu shafaati yowm alqiyaam man maa lay ramm yowm alqiyaam maa lay ramm maa lay ramm yowm alqiyaamati kon bi mu wa- waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daal di koy tinnu ci jaam ñi hadis boobu mu ngi ci Bukhari kooku mooy ramm gi nga xam ne yonent bi rek moo ko moom gis nga kenn bokk ci ñaareelu ramm shafaatuhu li ahlil janna fi duxuliha moom yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam keroog bi nit ñi sonnee noonu am ay jafe-jafe jaamu yàlla yi wax ko seen jafe-jafe seen lépp moom mooy ñëw buntu aljanna mu fekk fa malaaka bu koy garde malaaka bi nu mu tudd ah ridwaan malik mooy garde safara ndeysaan waa safara bu ñu sonnee dañ naan yaa malik waa udoo lana rabbak yow malik wool ñu sa borom lu ngeen koy dee ñu ne li yu xafifa anna yawman min al aza ngir rek ndeysaan mu may ñu benn fan ñu noppalu benn fan ngir mu may ñu benn fan ñu noppalu benn fan mu génn ñu biir safara benn fan ñu noppalu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam daal di ñëw buntu aljanna mu fëgg bi mu fëggee ridwaan ne ko kokkan la mu ne ko muhammad mu ne ko yow lañ ma jox ndigal balaa may ubbil kenn ma ubbil la ba pare yow rek lañ ma jox ndigal balaa may ubbil kenn ma ubbil la ndeysaan kon kooku moo yor caabi ji xanaa moo tax mu ne kullu ummati yadxuluna aljanna illa man aba xeet bi yëpp dinañ dugg àjjana ba mu des ku bañ fi mu nekk nii ñun ku dugg àjjana yow yaa bañ sahaaba yi ne ko naka la nit di bañ a dugg aljana mu ne man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba ku ma topp dugg aljana ku ma bañ a topp yaa bañ a dugg ku toppul Muhammad da nga lakk ëllëg ak koo mun doon ku toppul yonent bi ci alxuraan moo ñu ko nettali ñu topp yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wa salaam ëllëg yowmal xiyaam seen ñaari loxo la ñuy maat yowma yauddu zalimu ala yaday fii boo amee problème ñaata ñaata baaram ngay maat yowmal xiyaam ñaari loxo yëpp ngay maat ala yadayhi ñaari loxo la pour ala yadihi de benn loxo la ala yadayhi ñaari loxo yi ngay matt ndax jafe-jafe ñooñu di matt seen loxo kan mooy matt loxo kan mooy matt baaraam non dafa am lu tax ñu matt baaraam loolu laa jublu kan mooy matt baaraam ki rëccu lan lay wax ñu ne lan mooy seen rëccu yaa laytani yaa waylata laytani lu mu ci teg ittaxastu maa rasuli sabila aka neexoon ma jaar ci yoonu yonent bi aka neexoon ma ja wala loolu du alxuraan aka neexoon ma jaar ci yoonu yonent bi billahi wallahi ku jaarul ci yoonu yonent bi ëllëg dangay dem safara bunt yëpp dañ ko tëj benn yoon dong lañ ubbi mooy yoonu yonent bi ku ci jaarul doo dugg aljana loolu na leer ci ñun de bunte bi yàlla daf ko tëj fermé ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci hadisu muslim bu anas nettali ibnu malik qala rasul sallallahu alayhi wa sallam ana awalu nnas yashfau fi ljanna man maay premier nit kuy ràmmul waa aljana maay ubbi bunt bi ne yàlla ñi war a dem aljana nañ dem aljana ñi war a dem safara nañ dem safara nit ñi noppalu man yonent bi maay def loolu ana awalu naas la wax maay première nit kuy ràmm ëllëg yowmal qiyaam boobu mooy ñaareel bi ñetteel mooy shafaatuhu fi baadil kuffaari ñetteel mooy yonent bi moo ko moom waaye ñan la koy tinul lenn ci ay yéeféer la koy tinul waaye xaasa bii tamit dafa am kuñ ko jagleel xaasa bi ammihi abi talib ci bàyyi taxam boobu tudd abi talib kooku kese lay tinul ci yéeféer yi jeex na waaw lan lay tinu waxul yàlla pour mu baal ko waxul yàlla pour mu génne ko dafa ne yàlla oyofalal safara si ci kawam oyofal oyofal ko ndax lan kooku ni mu sonne woon ci moom muy tinu haysu yuxaffifu anhu azab ndax yàlla mën a oyofal ci moom mbugal mi xam ngeen ci biir safara la waa ji nekkoon dañ koy génnee buñ ko génnee ñu oyofal ci moom safara xam nga lan lañ koy defal fa yulbas naalayni min an naar ñu solal ko ñaari dàlli safara yuur yi di bax fa yulbas naalayni min annaar ñaari dàll la buñ ko génnee ñaari dàll safara lañ koy solal terewul yuuri di bax la ilaha illa allah aw yu daw wala ñu daal di koy jël moom waa seex boobu ñu daal di koy teg fii dahdaahim min annaar ñu teg ko ci peggu safara nii ci pind bi ñu teg ko foofu yonent bi nee na yuxla minhu dimaaxuhu mais terewul yuur yi ñooy bax ndax kon noppalu na kon xam nga ban image lañ war a jàng kon safara lan la est-ce que kon ñun mun nañ ko dégg hmm? Hmm, am na lu ñuy xaar de wallaay am na lu ñuy xaar loo xam ne war naa tax ñu bàyyi nelaw guddi bàyyi lekk bëccëg moo tax du hasard ngeen di dégg ñu ne saxaaba yi am na ñoo xam ne bi ñu amee 40 ans nelawatuñu guddi bi ñu aramee 40 ans lekkatuñu ba suur kenn gisatul ci ñoom kontaante soo leen gisee da ngay gis ci ñoom ñëkk da ngay gis ci ñoom ñu jooy ba seen lex yi am ay rongoñ ñu julli ba seen jë yi ñuul kukk seen bakkan yi ñuul seen oom yi ñuul lu tax parce que dañoo xam lu ñuy fekki ëllëg xoole ñun nag ñun dañoo féex nooy leer koo gis mu ngi bonde mu ngi tëb jàpp na ne moom ëllëg amul benn jafe-jafe Malik ibnu Dinar nee na bu ma amoon ay àndandoo ma am moyen ku nekk dinaa la jox loo bàyyi sa kër su guddee nga jaar ci mbedd yi kër gu nekk di nga fëgg buntu kër gi wala nga fëgg fenêtre bi su borom kër gi ne loola la nga ne ko annaar xalaatal safara ngeen jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne sahaaba yi kaanu qalilan min al-layli ma yahjaun lu ko waral safara daawoo ñu nelaw guddi Omar ibnu Abdul Aziz rahimahullah kaana iza daxala manzilahu jaala yabki hatta sabah bu duggoon këram rek day jooy ba bët set benn bis mu dugg di jooy soxna si daal di yeewu toog ci wetam di jooy njaboot gi dégg leen daal di ñëw yeewu toog seen wet falamma sami'ahumul jiraanu jaalu yabkuuna maahu bi leen dëkkandoo yi déggee ñuy jooy ñoom ñoom ñu yeewu toog ci wetam ba ci yàgg benn waaye ne ko yarhamuka allahu ya umar umar looy jooy mu ne tasawartu yowma alqiyama damaa imaginer yowma alqiyama rek fariqun fil janna mu ne kuréel gii ñu ngi aljanna fariqun fi sair mu ne ñii ñu ngi safara mu ne man umar xamaguma fan laa bokk hmm? est ce que ñun ñu toog fii ku nekk xam nga foo bokk loolu nag lu jar a xalaatal la kenn ku nekk nga xool ndax yow ci ban kuréel nga bokk alhamdulilah yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam mu ne ci xadisu abi said alxudri mu ne anna rasul zakara indahu ammuhu abu talib fa qala laallahu tanfauhu safaati yawma alqiyama فيجعل في ضحضاح في ضحضاح من النار يغلى منه دماغه حديث بابو بخاري موكو سولو ابو سعيد مو نيكو نيتلي dañ doon waxtaane mbirum abu taalib yonent bi ne ah yaakaar naa ne ëllëg daal sama ramm dina ko jëriñ laallahu tanfauhu safaati yowma alqiyama amaana ëllëg sama ramm sama tinu ci kanamu borom bi ma koy ñaanal yàlla xëy na dina ko jëriñ waaye danañ ko jël de teg ko ci peggu jahannama waaye tarawul yuri day bax wa hasil anwa alsalasa nee na ñett yi ñu doon wax sànq xaasatan bihi sallallahu alayhi wa sallam duna gayrihi nee na lii yonent bi rek moo ko moom keneen bokk ci ñett yi ñu doon wax yonent bi moo ko moom kenn bokk ci ñu ñëw ci ñeenteelu ramm mooy ashafaatu fi ahlil kabair ramm gu ñuy ramm borom bàkkaar yu bëri yi ñu mel ni nun sunu bàkkaar yu bëri yi ñun minal muwahidin ci ñi nga xam ne dañ doon wéetal yàlla di ko kennal mimman udxilun naar ci ñooñu nga xam ne gëmoon nañ yàlla ñu ngi doon wéetal yàlla waaye def nañ ay bàkkaar yu ponkal yu bëri yu rëy ba ñu dugal leen safara nee na fa yuxrajuuna minha dinañ leen ci génnee yadullu ala dalika qawlu nabi nee na loolu day tegtal waxu yonent bi bi mu wax ne shafaati li ahlil kabair man yonent dinaa ramm borom bàkkaar yu bëri yi min ummati ci sama xeet hadis boobu imaam ahmad moo nu ko nettali ñi am bakkaar yu bëri yi ci sama xeet man yonent bi dinaa leen ràmm ëllëg yowmal xiyaam waaye dafa am sart bu fekkee ne bokkaale wuñ amoon nañ tawxiid juróom juróomeel mooy ashafaatu li ahlil janna fi rafi darajatihim waa aljanna danañ leen ràmm pour yéegal seen martaba nit mën na dugg aljanna nekk ci kër yi ci suufan wala mu nekk ci jardin bi wala mu nekk ci buntu kër gi jàng ngeen ci hadis ñu ne ki mujjee dugg aljanna ki mujjee nga xam dañ ko génne safara di ko dugal aljanna bi malaaka bi indee ba biir këram ne ko kër gi yaa ko moom dafa dafa sujjóot te kër googu moo ëpp àdduna mu ne lii man lu mu sujjóot yàlla ne malaaka bi waxal du- dubleel naa ko beneen bu tol noonu am na koo xam ne bi ñu jàppee ci loxoom di ko yóbbu buntu biir aljanna bu mu yegsee dafa jékki-jékki rek sujjóot malaaka bi ne ko lan la mu ne damaa gis yàlla mu ne anam mu ne mu ngi nii mu ne non lii fleur la fleur aljanna la kii du sa borom kii fleur la kon dañuy leen di ñaanal seen daraja yéeg yonent bi nee na di nga gis koo xam ne mi ngi ci këram comme ni nga toogee fii di seen biddéew yi yuqaalu li saahibil quran iqra wa rattil kama kunta turattil ki jàng alquran dañ naan ko yéegal aaya booy jàng benn kër la mu yéeg ila axiri aaya ba aaya bu mu yem rek ñu ne ko yow fii nga yem kon di nga gis koo xam ne dina la séen comme ni ngay séene biddéew yi sikk nekku ci loolu parce que ñëpp tolloowuñ ci juróom-benneel mooy shafaatuhu li qawmin yadxuluuna bi gayri xisaab ay nit a ngi ni yoo xam danañ dugg àjjana kenn du leen àtte dañuy dugg àjjana kenn du leen àtte dañuy dekki seen bàmmeel waaxu dugg biir aljanna du ñu jaar place bi ñuy àtte kenn du leen mbugal yadullu ala zalika ma rawahu cheykhaani fi hadisi abdullahi ibnu abbas abdullahi ibnu abbas nettali nañu hadis boo xam ne buxaari ak muslim ñoo ko soloo nee na ci hadis boobu nekk na fa yonent bi ne damaa jékki-jékki ñu won ma benn mboo benn sawaadun ñuulaay azim lu ñuul kukk lañ ma won fa qiila li haadi ummati ñu ne ma sa xeet a ngi nii ndeysaan ci hadis bi mu ngeen demee ci kitaabu tawhid ci buntu yu njëkk yi yéen ñi ko doon fekke wala ñi koy jàng ba léegi di ko siiw di ngeen fa fekk yonent bi nee na yowmal xiyaam di nga gis yonent boo xam ne juróomi nit lay àndal ndeysaan mission bi yëpp juróomi nit la am di nga gis yonent boo xam ne moom ñetti nit la am mission bi yëpp li nga gis koo xam ne benn nit nga gis yonent boo xam ne moom kenn kenn wuyu ko yonent bi nag nee na man sawaadun azim ñuulaay bu ñuul pakk la la- lañ may lañ ma woon ñu ne ma kii mooy sa xeet haadihi ummatuk wa maahum sabuuna alfan yadxuluuna aljanna bi gayri xisaab wala adab mbooloo mu ñuul kukk moomu am na fa juróom ñaar fukki junni nit yuy dugg aljanna kenn du leen àtte kenn du leen mbugal bi yonent bi waxee lii ci biir jàkka ji mu nekkoon di jàngal hadis di jàngal jullit yi hadis wi ndeysaan gars yi ne ko man hum ya rasulallah waaw juróom-ñaar fukki junni ñooñu di dugg aljanna te kenn du leen atte kenn du leen bugal ñan la ñu ñooy ñan xam nga lu tax ñun ñu wuteeg saxaaba yi mooy bu doon tey yonent bi moo toog sunu kanam di wax lii ne juróom ñaar fukki junni nit danañ dugg aljanna kenn du leen àtte kenn du leen mbugal kii ni danaan man ci laa bokk kii ne ci laa bokk kii ne ku nekk naan ma man de xam naa ne ci laa bokk man de ci laa bokk ku nekk naan man ci laa bokk ci sa xel man de xam naa ne ci ñooñu laa bokk waaye xoola saxaaba yi ñoom dañu ne ko man hum ya rasulallah ñooy ñooy ñan gis nga pour lan ñu laaj laaj bi pour ñu mun a xam ñooñu ñan lañ lan lañ def ba ñu am darajay jóge ci seen bàmmeel rek dugg aljanna direct kenn du leen atte suñ ko xamee ñoom lu ñuy def dañuy jaar foofu yonent bi nag ñooñu ñooy humu lazina la yastarquun wala yatatayaruun wala yatakawuun wa ala rabbihim yatawakkaluun mooy ñi nga xam ne duñu mocc duñu picclu duñu gaaflu seen borom rek la ñuy wakkirlu waaw duñu picclu yatatayaruun yastarquun duñu mocc lu ñu feebar feebar duñu sàkk kenn mu leen defal mocc dañuy jàpp rek wakkirlu ci yàlla du ñu picc lu mooy du ñu jël picc sànni ko comme ni ñuy def ni jënd picc ne nii sànni booy tukki bu picc mi jaaree nii nga ne ah nii moo baax ah jaar noonu wala jël picc mi ne la yàlla ne sama musiba sama musiba njaboot lépp lu ma nar a dal àdduna ak àllaaxira tëf maa ngi koy sotti ci picc mi ndeysaan benn waay benn dof de dof dafa gis benn waay bu jënd picc taxaw di wax di wax 10 minutes wax wax wax picc dox bi di ko xool rek waa ji tëfli ci picc mi sànni picc mi daal ne nii daal di daanu ne nii laa fi daanu yëkkati bopp bi ne nii dox bi xool waa ji ba ci yàgg ne ko li nga ko sëf dafa diis dof de mu ne waa ji li nga sëf picc mi dafa diis ndeysaan dof li nga sëf picc mi dafa diis bi yonent bi waxee lii rek ci biir mbooloo mi fa qaama ukaasatu benn waaye bu tudd ukaasa daal di jóg taxaw ndeysaan fa qaala ya rasulallah mu ne yow yonent udu llaha an yajalani minhum ñaanal ma yàlla waaye ma bokk ci ñooñu yow yonent fa qaala anta minhum yonent bi ne ko yow bokk nga ci ci ñoom nga bokk allahu akbar kii de taxe na anta minhum yow ci nga bokk ndeysaan fa qaama rajulun axar beneen waay daal di jóg mu ne udullah an yajalani minhum yonente ñaanama yàlla ma bokk ci fa qaala sabaqaka biha ukaasatu yonente ne ko ukaas jiitu na la ukaasa jiitu na la ndeysaan kon de ukaasa texe na mbokk julit yi lii moo doon darsu ramm li ci yonent bi moom ak li ci ñeneen ñi moom ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh